Senegal buñ ci waxul ci réewum Sénégal de Sonacos bi nga xam ni moom la ñu wéer yaakaar gi wékku nag ci moom moom Sonacos moomee turbine yéene kaay ne ma maar day taali ndem si lay doon ñu nàkkal ko nag moom Sonacos daal di koy dëjal fa yàllaaw turbine ne ma ma ngi ca sukuraat saa si tembe Sonacos bàjjo bi ma ngay sukuraat xëy ma ñoŋul liggéeykat ya bëri wuñu renouveler seen capital technique bi defuñu ko benn yoon am na ñuy jafe-jafe it ci wàllu gerte gi ndax na ngerte si baykat yu bëri daanaka waa Chine la ñuy jaay turbine yéene kaay ne ma Sonacos a ngay sukuraat te tey nag laa lay xamal lan moo moo tax man la Sonacos ma ngay suguraat ndax bu normalee ba normal tribune yéen kaay na ma moom Sonacos ñetti téeméeri junniy tonne ci gerte nag moom la war a dajale am ko waaye saa si tembe ak fi réew mi toll moom Sonacos fukki junni ak ñett ci ay tonne loolu la daal dajale tey jii fii may waxee tribune wax yéen kaay bi dee média bi waxantu naa la xibaar leneen nag téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ci personnel saisonnier ba saa si tembe nag ña ngi ca chômage ba daal di arrêté ñoom employé ci boppam ñi nga xam ne kat nag mi ngi ci xottu gerte turbine ni ma te jeexagul de taxawal ak man ma xamal la ni am nay pièces de rechange yoo xam ne am nañu jafe-jafe am ko ñeenti weer a ngi nii centrale thermique yi taxaw maanaam liggéeyatuñu defatuñu lenn te dara yéen kaay bi ne ma dara waralu ko lu dul ay pièces yoo xam ne nee na ñoo yaay dafa paan turbine yéen kaay ne ma sonaa ko sa ngay sukuraat te bu ca président Macky Sall waxul ci ndem si yàlla lay mujjee fayallaahu direct news ne ma leneen loo xam ne andi na polémique muy nag coowal teer ba xam nga le Figaro ab journal la dafa defoon ab enquête ci enquête enquête ba nag wane ni Sénégal ci boppam moomul teer bi ni jëfandikoo coow la coow la moom moo di nag tekk-tekkaarul Mansour Faye moom goro national waxul yeyul yàbbul ci mbir mi lu ko waral ndax nag bu leen fàttaliku yàggul ba nga xam ne dañuy dalloo teer ba moom gouvernement gu Sénégal génn na wax yàkkamtee wax loolooy këf gémmiñu sàmba laataa muy walis en tout cas yéeni kaay bi ne ma saa si tembe nag ca wax joojee nga xam ni waxoon nañ ko ba sax moom Mansour Faye ci téeméeru fanu teer bi defoon na ab bilan d'étape daal di amal ab conférence de presse woon ni juróomi million ci Sénégal sénégalais ñi ngi jël teer bi xam la it ne koppar gu takku la Sénégal di jële ci teer boobee tey jii ñu ni leen mbër ma ngeen di bàkkoo du seenu mbër ñu ne teer Sud Quotidien ne ma en tout cas bu ñu waxee dañoo war a wax bu ñu waxul dañoo war a wax ndax teer bi saa si tembe day bëri na préro ñii naan la ñuy wax ne moo cay dugg ca alal amu te it nag la mu jar ak délai de livraison ba yëpp respecté wuñ ko Sud di ne ak luñ mën a wax sénégalais yi am nag mig mag boo xam ne dëgg-dëgg ña ngi ca dëkkayte ci teer bala daal di bàyyeekoo l'enquête quotidien ne ma teer ki jafe-jafeem ñu wax nag di layal français yi te it Sénégal ak seeni kàng nangam la ñu jëf ci teer bi wane ne ni soxlaatuñu SNCF beneen source ci teer ba daal di xam le ni bàyyi français yi nag ñu ñëw ci suñu dëkk nekk ci teer bi di def la leen sax sénégalais bu wax ñu dàq di la tuñ tuñal andi lay jafe-jafe giita ngaas lan dul nangooti sunum réew l'enquête ne ma naa la xamal tey nag ne diggante Mansour Faye ak SNCF googee sax dafa neexut fa source a ma diggante Yérim Seck gouvernement gu Sénégal mbaadu dafay bëgg ñaaw en tout cas Cissé moom daal dina koy yóbbu ci yoon ndax société am bii di Siscom dafa lal ay basangam ca fidaak ba ba mu saf ko ba sangam dem ñibbi te fayul tey jii moom ma bindoo Macky Sall face à l'histoire dina janoo ak juge bu tribunal bu commerce bu Ndakaaru Walf Quotidien naan man mbaa du ay lampi Mimi Touré nag dafa fay bu doonum njege maar Walf Quotidien ne ma kenn bëggul lañ koy woowee ña ànd ak mi Macky Sall Mimi la nuy bañ a tegu gët daw làqu ci opposition ba gars ne ko du fi dellul fa nga jóge woon tribune yéene kaay ne ma kan moo jox président Macky Sall coupe am ndax xam ngeen ak fi réew mi toll gars nag ña ngay lëkkale moom président Macky Sall ak Abdoulaye Wade xam ne jëli ma sirte mosuñoo soli ñaw góor finance emploi développement lépp ñoo ca yem kiif kiif génneew ñu Sénégal benn yoon ci guute gi nga xam ne ca la nekk moo tax it vox populi ma may xamal ni sëriñ Abdallah Sall ibn sëriñ Abbas Sall ma nga naan président Macky Sall bu nu andil coow bu nu andil riir troisième mandat bi bul ko def ci réew mi les ko yéen kaay ma kaay xibaar la ab enquête boo xam ne diggante Sénégal ak Afrique lañ ko def ngir wax na kan lan bëgg mu jiite leen ak ku ñu bëggul sénégalais yi moom bañ leen laajee dañu ne mandat yi na yem ñaar fii ñett fukk ak juróom dañu ne mandat yi bu mu weesu ñaar coow la coow la nag ngir mu leer mooy gars yi ci boppam ñoo bëggul troisième mandat le mandat yéen a kaay tey xëy samp laa kan moo bëgg nag dëgg-dëgg coow am ci réew mi kan moo am nag intérêt réew mi daal di tàkk jaxasoo ba maar day taal yi yéen a kaay bi ne ma nag ndax dëgg-dëgg ci langu politique yi nag dafa mel ni réeroo daf ci tàmbalee am ndax nag bu ñii di gàmm ñii di raas diem ñenn ñaa ngi menacé ni daanu yëngal gësam réew mi ñeneen ñi di woote ngir jàmm am monseigneur Benjamin Ndiaye ne jàmm day moo war réewum Sénégal te loo moonu jik nañu delloo buum ca mboy mboy ga delloo Sénégal njaay fa mu nekkoon moom moo monseigneur ne la xewoon ca assemblée nationale ñaaw na l'observateur mel ni ku naan man Sénégal a ngi de ak politique am mbay Ndiaye ci Vox Populi naan Ousmane Sonko di jël siis ma yedd la mbooloo mu takk moo topp sa ginnaaw te bu mbooloo topp sa ginnaaw da ngay daw yenn discours yi bépp sénégalais boo xam ne ab responsable nga mën ngaa moytundiku di woo ay sénégalais yu jaamaarloo di xeex ci seen biir moom Ousmane Sonko dafa war xool comportement xool façon bi nga xam ne noonu lay dundee façon bi nga xam ni moom lay waxee waaye tam na muy doo ci kilifa diine yi sama bi yéene mbay ne mooy usmaan Sonko ak président Macky Sall joxante loxo ndax na yàlla bu dogalee ni Ousmane day nekk njiital réew mi kenn munu ci lenn l'observateur ne ma politicien yi ci boppam ñoo war a bàyyi buñ defee guuta daw làqu ci politique ak ci boor bu mu mën a doon politiciens yi tàmm nañu régler seen i problème ak politique politiser seen i problème saa bu ñu nekkee ci guuta Mamadou Dia jaar na fi wal joojo Ndiaye jaar na fi Karim Meïssa Wade jaar na fi Abdoulaye Wade jaar na fi Khalifa Babacar Sall jaar na fi tey jii nag Ousmane Sonko la ñuy ay tura ki dossier ne laa lay jox Abdallah Sall ibn Serigne Abbas Sall ci Vox Populi naan en tout cas Sall troisième mandat moom waroo koo def ci mim réew waxtu woowu 24 heures a ma Amadou Ba day ma doxal ci temps tebal tàkkul sagar xeeñul 26 janvier moom Amadou Ba ma woon ci njabootu laayeen gi 28 mu waxtaan ay militants mi nekk Grand Dakar saa si tembe nag mi ci feem boo a cas lu muy nas réeroowu caag Youssou Ndour moom ma jigéen boobaak léegi ñi ngi koy xaar ngir mu wax ci troisième mandat bi mu ne teeg laaj ba mooy mbaadu dafa nar def duo ak aamadu Ba les ko yéene kaay ne ma waxtu waw day rappeur def ñu say diggante Fou Malade ndongo di Simon Kilifa Ngaaka Blindé na ñu nag nit dof ci boppam ñu daal di koy libéré acharnement goo xam ni gouvernement gu Sénégal mi ngi koy def ci mu ma hop bi lañ ko dippee boobu Sénégal njaay day mi ngi ci top 10 bu indice bu moo Ibrahim ci gouvernance gu ñoŋ ci dénduk Afrique le quotidien le quotidien na ma juróom-ñeenteelu bi la Sénégal jël ci dénduk Afrique muy classement bu baax tribune yéen kaay naan kon lu mu neex neex moom président Macky Sall nag war naa réagir réagir nag ci def lu ne weng ci réew mi te dara la ci fekk délinquant financier yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi sàcc alalu askan wi tuñ tuñal ko te ba tey France daal di xëdem ñu nar koo fàtta tàbbal ko géej la ñu ne du fi am libération yéen kaay na ma kaay ma xibaar la ab wotob gendarmerie la ñu daal di attaqué ak i xeer ak benn ci ndaw yoo xam ne quartier Alaaji Paata ca Kër Masaar lañ dëkk ñu jàpp leen xale ya nag nee ñu tax ñuy sànni xeer gendarmerie mooy dafa dugg seen territoire libération yéene kaay ne ma bul sori de moom kër masaar googee laay des ak yow ma xibaar la ni gang ba nga xam ne ñoo faatoon vigile ba daal dinañ leen di jàpp benn par benn kenn ci ñoom njortu nañ ne mooy ka nga xam ne moo doon vigile ug jumaa ja juróom ñeneen ñu bokkoon ca gang bi jàpp nañ leen ci benn baar ca kër masaar l'observateur naan man daaneel ak wutub sëriñ gi ci réew mi sëriñ goo xam ni mi ngi ñuy jural jaxannama l'enquête bi wane ni saa si tembe sénégalais yi day ña nga dem ba ca ñaawteef extrême ngir am lu ñu bëgg waaye tam faagaagal seenub kii ni man deret jay bàyyeeku ci man bu ma gisee mbaax moom laa jëfandikoo ngir mën a faagaagal sama wujju kii ne moom ñetti xaj mbaam ak benn ginaar laa jël suul ko te ñu ngi dund sëriñ bii ne homme public bii sacrifice la def ngir mën a toog ci donkaasi gi ba faw waxtu woowu yéen a kaay ne ma ca caameen kenn koo xam ne nee na charlatan la buy woo ay jinne moom la ñu jàpp ndax escroquerie mu toll ci juróom-ñeent ci million ak lu mën a am mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm